dañuy sant yàlla bu baax baax. di na làmb am na ñàkk ñàkkati nañ. làmb ñàkk na. Balla Gaye 2 ñàkk na la de Guiers 2 ñàkk na Sa Thiès ñàkk na mais surtout ak lu làmb nag parce que suñu papa du ba lu bëri représenté ci ñun kon donc am na loo xamante ne tey bu dalee suñu kaw tiis bi dañuy ñaan yàlla. yal na ko yàlla xare àjjana yàlla suuf sedd ci koom football suñu lépp la woon suñu lépp la woon waaw mu déggee seen lépp la woon kon moo leen moo leen boole leen jure woon la boole woon téye noonu la leen boole woon yilif waaw noonu la ñu boole woon yilif tey bu ñu bu ñu bu ñu miinee Casamance à cent pour cent jëmmam la parce que bëri fu mu ñooñu fu moo ñu fa doon duggal fu bari foo xam ne moom moo ñu fa doon dugal fi nga xamante ne dafa doon dem di fa ñaan lu yooyu yëpp moo ñu fa dugaloon moo tax ñun ñàkk nañ vraiment ñàkk nañ nañ mais dañuy santaat yàlla daal marchandise yàlla la rek yàlla moo ko jëlaat waaw te ñun ñëpp dinañ dem wuyu ji suñu borom waaye yàlla ñu fekk ci jëf ju baax mais mën a laaj ci ay jikkoom li nga jot a dund ak moom ban jikko nga gën a jàpp ci moom boo xam ne jikko bu la neex dëggu dafa dëggu moom lépp lu mu wax rek lu dëggu la man loolu moom ma gën a neex ci moom loolu ma du wallahi azim dëggu la lépp lu mu la wax jàppale la mu wax looloo am man loolu moom may gën a marqué ci moom parce que xam naa ne du ñu gisati koo xam ne dina taxaw lu ñuy wax dëgg. dëkk bi daf ñu koy wax nii eh lii ak lii boo defee li dinaa la bere boo defee li dinaa la bàyyi am naka laaxira te la ngay wax la mu lay wax noonu loolu lu ci moom moo tax nañ ko ñaanal yàlla yàlla na yokk yàlla yàlla yokk leeram lan moo la gën a marqué ci moom loo xam ne dund nga ko ak moom loo xam ne marqué te doo ko fàtte waaw mooy suñu dem Casamance yi mu nekk koo xamante suñu papa la dugg ak ñun fépp ci biir Casamance dugg ak ñun foo xamante ne sax am na ñoo xamante boo leen jëloon fii na leen dugg leen fi. lu leer laa la wax dugg ñun foo xamante ba fi bàyyi ay doom yu ko ñaanal ci ginnaawam parce que loolu rek sant yàlla la di ñaan yàlla daal yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana ak ñëpp mu fekk ñëpp ak mbépp mbooloo mu jullit di ko jaal Balla Gaye 2 bu baax Sa Thiès ak mbooloom ñi nga xam ne mooy famille Sakho bi ak Pape Mama ak mali Gakou ñi xam ne vraiment ñoo écurie Balla Gaye yëpp ñoo la min golo vraiment tey tiis bi ci ñun la dalati quoi làmb moo ñàkkati mais nag euh, yàlla bu bëggee jaam bi bëgg sunu borom mooy euh, mooy priorité te ñun amuñu lu wax dëgg yàlla dul ndogal sunu borom wadd rek nu mën a mer rek ñu nangu ko ba mu nekkee lii nag di sant yàlla bu baax a baax di ñaan yàlla yàlla yóbbu ko àjjana yàlla mun na ko yàlla na yàlla def di bokk ak euh, naxar wi Balla Gaye 2 Sa Thiès ak famille Sakho gi yëpp parce que tamit vraiment kenn ko xam ne bàyyi waajur ni mu mel ci euh, ci doom ni mu mel tamit ci famille kenn la woon seen papa ñoom xam naa ci dara ku bëgg seen waajur lañ suñu waajur la mais tamit lu gën a jigee gën a yee alxuraan loolu la wax kon defe naa ñi ngi ñaan yàlla daal yàlla yóbbu ko àjjana di wax ni daal tey daal am nañ lu ñu metti trop trop trop mais am na tamit lu ñu neex ci benn côté parce que tamit nga bàyyi fi doom joo xam ne leer na ni kii dalay ñaanal loolu rek sant yàlla la ah di ñu non non moo ñuy jox sas ñun duñ ko jox kii quoi suñu kilifa la ci làmb suñu kilifa la ci lépp liñ mën mooy bokk ak moom naqar wi moom bu amee lu mu ñuy wax moom moo ñu koy wax ñun duñ ko wax parce que suñu kilifa la kon defe naa li ñu mën rek mooy bokkook moom jaale ko mais bu amee benn sas wala benn ñaax ba mu ñuy ñaax moom mooñ ñu naan def leen nangam def leen nangam yuuf ñu comme ni mu bàyyi mi wuufee woon loolu rek la méttu leen non loolu exemple la mooy woon ne ñun dañoo war a juboo nekk benn loolu dañoo war a juboo nekk benn parce que tamit ku xool mag ñi nii su rafetul woon lii du am te ñoom ñëpp tey ma euh, macha allah ànd nañ ànd bu rafet ah ku mel tubaabu joor barki démb Mor Fadam E Bambara ah tey tey sunu papa euh, kii euh, Balla Gaye tey sunu papa Double te ñun ñii bu ñu fi nekkee di xiiroo ngaa ñëw nii lay demee rek bu rafetul du rafet moo tax dara jërul di ñaawal wala parce que yàlla noppi na bi nga amee quarante deux jours sa biiru ndey la def li muy def ci yow pare na Babacar munu ci tous noppi na kon nag bu jaami xameen loolu rek nañ ko rafetal am ah, man boog ci loolu laay dox man mu munul ñàkk sikki naa nag dinaa tooñ dinaa histoire mais wàllu ki ñaan nekkul sama xol wallaahi ne ko. mais les mos ngeen a jëflante yéen ñaanu. non déggoo dama ni mos na wax benn mi ngi ci journal ba tey danu woon buy joxe roi bi wala ki mu yaakaar ne mooy nekk roi mooy guy gi wax boobu dafa ma marqué wallaahi mi ngi ci dëgg maa ngi fen maa ngi ko tey mag Balla Gaye 2 avance am moom yëkk ni mag Balla Gaye 2 ñoo ko jëli benn kër tantam bu nekk parcelle defe na bu nekk asalem sama Mercedes lañ ko jëlee man moom ak Nas ak Thierno Gueye ñoo ko jëli. mu yëg ci kaw wàcc tey ñuy wax man moom Balla Gaye xam na man xam naa Thierno Gueye xam na sama Mercedes benn bi kon defe ne amoon na ay relations yu particulière mais du loo xam ne tey dañoo ñëw tey di ko souligner di wax mais nit ki bu génn àdduna rek sunu borom nee na lu baax waxal lu bon noppil lu baax la ñuy wax lu bon xamuñu ko ci moom kon lu ñu mën mooy wan ni carrément amoon nañu relation yu particulière ak moom ak ay doomam dum sax doomam ay ak ay doomam laa wax Sa su ma rakk la gis ngeen damay doxee ak ma moom Balla Gaye 2 tam waxi noppi ak yeneen yeneen yoo xam ni daañ ko seq man moom Baye Ma Ndiaye Lamine Golo ak yeneen ak yeneen kon defe naa tey bu amee lii dal ci kawam war naa mën a ñëw ne man lii lañ seq muy lu rafet nit ñëpp àdduna bépp seede ko muy loo xam tamit lu nekk lu naturel la man du ma loo xam ne da ngay dem yóbbu ma vaar naan moo xalee moo xal non du ma dundee noonu loolu la. maire Fadam dem na euh, Balla Gaye 1 dem na Double dem na Sa Kajoor dem na ñoo ñëpp nekkoon ay icône lamb dëkkoon ci Guédiawaye yéen ngeen di ay xale tey héritage bi ñu leen bàyyee maanaam ndono bi ban taxawaay ngeen war a mën a am pour sàmm ko. mooy li ma la wax nii rek mooy li ma la nii rek ñu nekk benn rek àndandoo mais buñ ci boole leneen loo xam ne bokku ci rek ñun suñu bopp la. suñu bopp mooy ñun ñooy toogaa suñu biir kenn ku ne naan su ma yogoon su ma yogoon day jékki-jékki day wees ñun kenn ku ne li nga dund munoo ko dundaat wala boo ko dundaatee doo dund sa tey bakkan fi nga toog ngay toog dañ lay waxal dañ lay defal fekk jëf wees na fii lañ ko mën a réparer comme ni ko tubaab di waxee defar ko nekk benn suñu rakk yi ñi ñëw nekk suñ suñu ginnaaw parce que suñu rakk yi tamit ci ñun la ñuy xool ku gis lii ñii am na ñoo xam ne ñu sës ci moom ci ñoom la ñuy xool ñu mel ni ay ñoom Tyson ñoom ñoom Baboy ñooñu ci ñii la ñuy xool ñoom tamit ñu départ ñun ñu xool ci ñooñu ñun tamit suñu rakk yi xool ci ñun noonu rek la mel parce que tey li fi yóbbu li fi yóbbu Seydina Mohamed du fi bàyyi suñu papa Double Less te suñu papa Double Less jullit la kon defe naa loolu boo ko xoolee rek kon ñun dañuy dem tey jii ñun ñii kenn ku ne am nga mbokk moo xam ni dem na wala baay bu dem wala mag bu dem wala rakk bu dem wala xarit boo ànd ak moom guddeeg bëccëg ku sës moom dem bis bii ñëw guddi na wala naaj na na gaaw génn kër gi wala ñu am jàmm suul la peele dal ñu ñëwaat billaahi ku ko dul xalaat doo nit guddi gi njëkk ci bàmmeel ku ko dul xalaat doo nit nañ ko di xalaat nañ kaf di ree di nekkante benn di bañ di dugal iblis suñu biir iblis suñu biir nit la iblis kenn mësul gis ñu bind ko beneen burul nit nit la nañ ko nañ ko bañ ko yaatal te buñ ko yaatul rek lu ñu bëgg ñun ñëpp dinañ ko am pas waay rek kenn ku ne fa nga nekk moytul iblis suñu biir ñu mu ñuy boole. ku gis lii tey Balla Gaye lii bi mu xewlee tey ñu ma fi njëkk bëriwul man it yàlla te yàlla na yéex bu mu xewloon ñu ko fay njëkk du bari kon xam ne sequñu dara jàmm lañ seq bu fi dara nekkoon kenn du ma fi gis.